الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أجمعين حمر الهداية وكوكب الإناية مصباح الرحمة والشمس دين إسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية سرمدية wa ala maqaamahu fawqa kulla maqaam kama xaala seex sayidul xaaji malik si ridal malikiya makaanatahu makaanata duuna duuni wa duuna albadri duuna allaahi xaqan jamii arrusli taalamu duuna xiin ayuha almustamiuuna walmustamiaat fi lmasjidi alkiram aw fi lbuqati almubarak nuxayikum jamian bi taxiyati alahlu aljanna fi aljanna taxiyatan tayibatan xaalisatan mubarakatan min indi alifun wa laamun summa laamun wa haaun jalla jalaaluhu subhanahu wa taala illa sammayda ina sayidi lubbi lubbi himi aw sayidi tibbi tibbi himi miimun wa xaaun summa miimun wa daalun sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bi ñu daan leen nuyoo saayu dimaas jotee ci tele bu tedd bu sell bi ñuy wax Chérif Dabakh TV di leen ziyaare di leen baalu xàq tey baal ñëpp xàq tey ñaan tabaraka wa taala yal nañu yàlla boole jéggal di ñaan subhanahu wa sunu kàddu yi yàlla na leen fekk ci jàmm def ko nekk bi barakati sayidil wujud tabaarakallaahu ñu ngi ndokkeel àdduna yépp ñaan yàlla subhanahu wa yàlla sàmm ñu ci biir ak ci biti tabaarakallaahu di jiital ci ndokkeel yi ak nuyoo yi ak ziyaar yi lillahi xawmu iza xallu bi manzilatin xalla nada waalat fil jawwi anwaaru tastaaxuhum kullu ardin yandiluuna biha ka annahum li biqaail ardi ansaaru Cherif Ibrahima Haydara Atijaani ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di ko ndokkeel di ko jox wàccuwaayam ak sago ak wér ak mu yàgg fi lool ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu di ko ndokkeel ci waxtaanu démb bi mu ànd kook sunu ustaas alxaaji Malick Ndiaye fa tabaarakallaahu ci waxtaan gi ñu def démb mu am solo lool fa tabaarakallaahu ak li mu ëmb yépp fi mu tijjee ba fi mu jeexalee waxtaan bi fa tabaarakallaahu mu doon ko waxtaan ci mu Mouhamadou mu muxaddamu Cheikh Sayid Ahmad Tijaani boobu tabaarakallaahu ñu ko ci ndokkeel bu baax di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla ko yàlla sàmm nuyu bu baax Haji Malick Ndiaye tabaarakallaahu ndokkeel e, sunu baay di suñu lépp di imaam alxaaji Moussa Guèye tabaarakallaahu bokk ci ñuy def émission fii ci tele bi waaye yàlla dogal mu def fi émission boo xamante ni keroog wër na àdduna tabaarakallaahu imaam Moussa li ma wax démb ca daayira ba rek moo di ne mag ñi fi des te yàlla dimbali leen ci waxu wolofal ñu mën koo jox nit ñi ni ñu ko bëggee ku leen wàññi génnee ci imam Moussa ñu manqué kenn waaw leen wàññi génnee ci imam Moussa gi ñu manqué kenn tabaarakallaahu wala sax moom ngay jiital faf ku yàlla dimbali la ci yooyu ànd kook xam-xamam ànd kook dalam ànd kook lépp fa tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di nuyu fa tabaarakallaahu sunu xarit suñu mbokkum daara di suñu lépp di imaam alxaaji Moustapha Guèye ibnu imaam Moussa Guèye tabaarakallaahu nuyu soxna Asi suñu yaay tabaarakallaahu nuyu suñu yaay Kumba Caam fa tabaarakallaahu nga xam ni shérif da koy wax ni mooy premier taalibeem ñu di ko ziyaar bu baax di nuyu bu baax imaam alxaaji Lamine Diop moom it bokk na ci ñuy def émission ci tele bi yàlla dogal mu fi waxtaane jawahirul maani bu seex sayid ahmed a tijaani e, barzaqul baraziq wa tabarakallahu ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaar imaam alxaaji lamin jóob ndokkeel ko ci xam-xam bu set bi xam-xam bu leer bi fa tabarakallahu waaye nuyu bu baax a baax fa tabarakallahu alxaaji mbay géy di rakk ci sëriñ maam góor géy miy tagg sayduna muhammad moom it mu ngi fii dar di ko ndokkeel nuyu bu baax sama sëriñu bopp imaam alxaaji abdul aziz caam wa nga xam ne dimaas bi passé bi ñu ñëwlee ndax gàmm gu ñu amoon mu am gàmm wa tabaarakallaahu abdul aziz caam moo ñëw toogee fii def waxtaan bi ñu di ko ndokkeel ci waxtaan bi di ko ziyaare di ko jox wàccuwaayam te di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla sàmm nuyu suñu bàyyi alxaaji mu lay taal tabaarakallaahu nuyu imaam Souleymane sàmb ak ñi mu koy àndal ak sunu sëriñ alxaaji lamin Saaxu fa tabaarakallaahu ziyaar ko ndokkeel ko jox ko wàccuwaayam waaye nuyu bu baax a baax fa tabaarakallaahu imaam alxaaji Kamara Jaw mii fa tabaarakallaahu nga xam ni moo ñuy wéttali ci waxtaan bi ak ya ca aju ndokkeel ko ziyaare ko te baaba Chérif Ibrahima wax ko démb ni imaam alxaaji Kamara Jaw mu baax mii nga xam ni du tàyyi mukk tabaarakallaahu te loolu mooy li am ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko ziyaar nuyu bu baax a baax fa tabaarakallaahu papa Abdoul Aziz Seck nga xam ni moo jiite wàllu tele bi bu ñu toogee fii ba ñëpp mën ñoo seetaan fépp ci moom la ànd koog papa Abdoul Aziz Diop fa tabaarakallaahu ñu di ko ziyaar di ko ndokkeel di ko jox wàccuwaayam te di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla ko yàlla sàmm mm. nuyu àdduna yëpp ñi jàkkaarloo ak ñun fii ba bitim réew fa tabaarakallaaw ñoo ngi nuyu ñëpp ndax émission bi bu tàmbalee rek waa bitim réew ak waa réew mi yépp ñoo ngi toog jàkkaaroog moom tabaarakallaahu ndax bëgg yonent bi ndax xilaasu zahab bii ñuy waxtaane ñu nekk ci ñeenteelu bunt bi fa tabaarakallaahu e di nuyu nekk koo xamante ni fa tabaarakallaahu ñépp xam nañ ko ci tagg sayiduna muhammad mu doon nit koo xamante ni ku yiw la ku tedd la ku teey la ku dal la muy sëriñ Mouhamadou njaay Jamil fa tabarakallahu sëriñ Modou Ndiaye Jamil moom lañu ñu tey ci sunu émission fii ci zawiya alxaaji Jarga Saw sëriñ moodu ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax Ndiaye ndokkeel la ziyaar la jox la sa wàccuwaay bi la yàlla jox xam naa ni li maam Ndiaye waxoon ca ngént Mansour Thiam la lañuy delloo sa sant maam njaay dafa ni sant njaay li tax mu yéeme moo di ni caaya Ndiaye caaya 14 la njaay 14 la Ndiaye 14 la mu ne boo ci wàññi rek moo toll ak wahaabu waaw mu ne looloo tax caaya ku ko doxee soxla soxla ba sotti <laughs> ndax see sant maam Ndiaye ko waxoon ca ngénte Serigne Mansour Thiam. Abdou Aziz Mbaye day ree ba tëdd ci suuf mu ne waxaat ko waxaat ko delluwaat ci tabaarakallaahu moo tax njaay mooy wahaabu tabaarakallaahu di eh, fukk ak ñeent tabaarakallaahu moo tax ñu ne caaya ku ko doxee soxla rek mu sotti fa tabaarakallaahu sëriñ du Njaay Jamil ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla sàmm la ci biir ak ci biti sagu ñépp nga sagu àdduna nga fa law ci sa mbaax ak ci sa teey ak sa dal ànd koog ñin ko àndal yëpp ñu lay aawu ci sayyiduna muhammad law ñoo ngi nuyu ñëpp xam nañ ñëpp waaye buñ jiitalee sëriñ moon njaay jamil lekk dina doy fa tabaarakallaahu nuyu bu baax baax a baax nekk imaam al tabaarakallaahu moom sërif ibrahima aydara atiijaan yi nga xam ni yii yëpp bu amee ñoo ngi ko jaaralee ci moom ba fa tabarakallahu sëriñ Moon Njaay Jamil agsi fii ci jotaay bi diggante moo ak sëriñ Moon Njaay Jamil kenn du ko wax moom xaaji bay di sàll ndax diggante la boo xamante ni yàlla yi kese moo ci lalu yàlla yi kese moo ci lalu fa tabarakallahu loolu rek doy na seede ci seen diggante yàlla na yàgg ci barke naa Muhammad xaaji bay di sopp sëriñ Moon Njaay ba Moon Njaay buy woy moom du am sago fa tabarakallahu Moon Njaay itam sopp ko ngir tarixam bi ñu bokk ak yàllay kese fa tabaarakallaahu yàlla na yàgg ci barke sayiduna muhammad ànd bu rafetee nañ di ñaan mu yàgg te seen ànd rafet na lool yàlla na yàlla sàmm leen ci barke sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu bu baax xaj Mamadou Lamine ak Cheikh Basir fa tabaarakallaahu ndooy ñu ngi koy nuyu bu baax a baax fa tabaarakallaahu xaj Basir ndooy ak Mamadou Lamine fa tabaarakallaahu mu mel ni a ah, ki ñépp doon xaar agsi na muy sëriñ Modou Ndiaye Jamil olof dafay wax ni nekk saxaar bu jubee gaar dafa korne am na ñuy wax dafay korne am na ñuy wax dafa korne boo ca wax rekk mu mën a dem yóbbal sëriñ Mouhamadou Modou Ndiaye Jamil kàddu gi mu dugg fi mu war a dugg bu noppee ñu door xool ban yoon lañuy jaar ba àgg ci xilaasu zahab ñu door ko dugal ci xilaas bi mu woy ko waaye sëriñ moon njaay saxaar daal bu jubee gaar dafay koor ne kàddu gàngoog bismillah nahnu fi fi rawdati rasuli julusun الحزن هذه يقظة وإلا منام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام جد في سيرها فلست تلام هذه طيبة وهذا المقام نحن في روضة لجلوس هذه يقظة وإلا منام حرم حل نبي كريم وإمام بجانبي وهمام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام وجلال وهيبة ووقار وبهاء بضعة واحترام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يعزة وإلا منام فهنا الفؤاد لتطفى رب شبه الهوى وقرام نحن في وإلا منام مدعنا لوحة وشوقا ووجدا وغراما فوا عليك ملام في السعود قد خل فيه قمر زللت عليه الغمام نحن في روح عودة الرسول جلوس هذه يحزة وإلا منام كيف لا تذكب الدموع جفوني وهي من قبل أن ترى سجام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يحزة لا منام كيف لا تدعل العقول وتفهي كرام نحن في روضة الرسول هذه حزة وإلا منام كيف لا تدهل العقول وتفنى العاشقين وهي كرام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام يا رسول الإله إني محب لك والله رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام نحن في روضة الرسول جلوس هذه يحزة وإلا منام يا وسلام يا رسول الإله شوقي عظيم زيد والحرام فيك غرام نحن في روضة الرسول جلوس ونذير الكرام ليس يدام عودة الرسول جلوس هذه يحزة وإلا منام يا رسول صلى الله عليه وسلم إني نبيل ونبيل الكرام ليس يدام المعزد لفخر وملك رب الجود والوفا وذمام نحن في روضة الرسول كتاب الجنة هذه حدث وإلا منام أنتم مقصدي لفقر ومنه يرب الجود والوفا وذمام لكم حرمة وجاه عظيم ووفاء ورفعة لا ترام نحن في روضة الرسول هذه يحزة وإلا منام ليلة الإسراء الوزر أهل كل سماء سجد الكل إذ رأوك وقاموا نحن في روضة الرسول جلوس هذه حزة وإلا منام ليلة الإسلام صلى الله عليه وسلم قدمت لصلاة وصلوا كلهم مقتدل وأنت الإمام نحن في روضة الرسول قلنا هذه حزة وإلا منام يا نجي صلى الله عليه وسلم في قدرة القاس كريم الله يقام أنت نور العيون أنت أماني أنت روح القلوب أنت الهمام نحن في روضة الرسول جل مرسى بهذه عزة وإلا منام أنت يا سيد النبي نبح محمد الأمير أنت يا سيد أكغرين بحر فيتك سبح الكل في نداك وعام أي محمد لمن نحن في روضة الرسول جلوس محمد نحن في روضة الرسول جلوس هذه يعذة وإلا منام سر وأنت للوحيد الكل أول كوبك يلن لخيتك أكدور أكتب تربت جيكو سوتما لولوي دك تدك لا جرنا ويمد نحن في روضة الرسول جلوس سيدنا محمد نحن في روضة الرسول جلوس سيدنا محمد قبضة وإلا منام سهر الكلب دور نور محمد أخيتك أكدور أكتب ترفت جبا مصطفى لولي دك تدك لا كرنا ويبدي نحن في روضة الرسول جلوس سيدنا محمد نحن في روضة الرسول جلوس أبي عزة وإلا منام بدت لنا حبك محمد الأخي جاكا وتبدت وتبدت مصطفى لليتك تدقلا درنا ويبدا نحن في روضة الرسول جلوس محمد نحن في روضة الرسول جلوس وإلا أنام لغيتك ويا نبي الهدى معاك بك محمد لغيتك أكدور أكدر تربت جيكو مصطفى لغيتك تدكلا يرنا ويبدينا نفي روضة الرسول جلوس سيدنا محمد نحن في روضة الرسول جلوس القول من هذه عدة وإلا منام كيف لا يرتجب المسجد محمد لخيتك أكبر أكتم رفجك مصطفى لويتك تدك لا جرنا ويبدنا في روضة الرسول جلوس سيدنا محمد نحن في روضة بالرسول جلوسا هذه يقظة وإلا منام يمدح المدح كل يوم أي لفت ينام أكبرت أكتت ترفت جيكو مستوى yow jar nga way ba dee ndax nu fi rawdati rasuli julusun ndax nu fi روضة الرسول جلوس من هذه يعزة وإلا منام فيك يا فيك يا فيك يا أي محمد الأمين فيك يا من فيك يا من فيك يا باي فاطمة نبيات خنيو في دنيا فيك يا من فيك يا من فيك يا من محمد فيك يا من فيك يا من فيك يا من محمد الله أيوة نبي دخل نيو فيك دنيا بي فيك يا من فيك بك يا من فيك يا من أي محمد الأمين بك يا من بك يا من بك يا باي فاطمة تخرجون يجدون يا بي فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من فيك يا من وجنا بيا تخرجون في جدون يا بي لو خيتك يا من ay Mamadou Lamine man yow de danaa la way ba ne tax ñu ñëw ah loxo ca kaw fi ka yaa man fi ka yaa man fi ka yaa man fi ka yaa man fi ka yaa man fi ka yaa man way na bi yaa tax ñu ñëw fii ci dunya be yaa ilaaha samaa صل عليه أي محمد الأمين كلما دام لزماننا يا إله السماء صل عليه كن كلما دام لزمان دوامه وعلى آله أجل الفراغ أي محمد الأمين وعلى صحبه جميع سلام ويلين محمد الأمين وعلى آله أجل للبرايا وعلى صحبه جميع سلام وعلى آله أجل أجل للبرايا وعلى صحبه جميع سلام أجل للبرايا وعلى آله أجل للبرايا وعلى صحبه جميع سلام ah fa tabaarakallaahu jazaakallaahu xayran wa ku fii tasarran laa laqiita ma baqayta durra sëñ Modou jërëjëf fa tabaarakallaahu hmm. fii yaa tax ñu ñëw fii ci duniyaa wallaay wax nga dëgg lawlaahu maa kaana al wujuudu fi l wujuudi walam yakun lana ruku wa sujuud Cheikh Saadu Abihi moo ko wax waaye fa tabaarakallaahu xamidnaahu bi ijlaalin wa sallayna wa sallamna lam yakun lawlaahu akwaanun wa azmaanun kooku mooy sayiduna muhammad sëriñ Moodu jëf yal na yàlla fay la way wi am na ruux way dafay am ruux bu génnee ci ruux dali ji ci ruux rek ruux ya yëngu fa tabaarakallaahu way wi dafa am ruux deewul day dund am na ruux fa tabaarakallaahu yal na yàlla fay la bi barakati sayiduna muhammad huwa ahmadu fi ismihi wa fialihi jamaa sirriyatu walxaqiqatu fahkumi dawqun aliyun fi l ardi axallahu aslun karimun musmiran kulla nada huwa sayiduna muhammad fa tabarakallahu mi nga doon tagg surtout nag ci way wi mu ko duggee nga xam ni mooy sunu way waaw ma ne mooy sunu way ndax ma moo mooy sama way man anta nuurun fa tabarakallahu nga xam ni ci la borom way wi cité ci biir way wi mu ne sëriñ Modou Ndiaye Jamil bu toogee ci barab di tagg Sayyiduna Muhammad suba ba ngoon ñépp daañu déglu te kenn du siisu ne tagg leen sama baay mu ne yonent bi rek ko ko am mu ne sëñ Modou Ndiaye bu fa bàyyeekoo keneen ñëwaat tagg yonent bi ñépp fittasu ku ñëw rek ñu fittasu te ki ñuy tagg kenn la mu ne buñ ko defoon baayu jàmbur am ñu siisu ne saa baay ne yem doxul madaxa kulla yawmin wala yamdaxu almadaxa almaadiquuna yamdaxu almaadiquuna kulla yawmin fiika yaa man yusaanu bihi lkallaamu huwa sayiduna muhammad ñii tagg yonent bi óor bu ne ñu ngi tagg sayiduna muhammad te saa yuñ ko taggee mel ni tey lañu tàmbali di tagg yonent bi ndax rekk waa ji ni ni yàlla farak moom moom sayiduna muhammad nga xam ni mooy léppay yàlla ca këram moom yonent bi moo tax ku bëgg yàlla la rek bëggal sayyiduna muhammad moo ca gën a gaaw xul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni su ko defee rek yuhbibkumullah waaw yàlla nee na ku bëgg ma am cofeel ci yow bëggal sayyiduna muhammad ndax moom laa jiital ci diggante jaam yi di Mon Njaay sëriñ Mon Njaay kenn mësta ba mu def direct ci yàlla te it yàlla du may kenn mu def direct ci sa loxo mënul ne dafa am ku diggale jaam yi ak yàlla kooku mooy sayiduna muhammad moom la seex sayidul xaaji malik di wax ni huwa sirru sirrullaahi sirru wujudihi bihi urifa arrahmaanu wa huwa rasulu ca laam yàmba huwa moom rasulillaahi asirru mooy sekkare bi dox ci diggante jaam yi ak yàlla sirrul wujudi mooy sekkare mbindeef yi sirrullaahi mooy sekkare bi bàyyeekoo ci yàlla ñëw ci mbindeef yi bihi ci juddub yonente bi urifa la ñu xamee arrahmaanu ku yàlla wa moom sayyiduna muhammad ar rasulu mooy ndawal yàlla yàllaa ko yónni ci ñëpp huwa alladi arsala rasulahu bil hude wa diini alxaqi li yuzhirahu ala diini kullihi walaw kariha al musrikuuna dontu sax ñi bañ bañ nañu ba tëdd ca naaj wa di wut ku leen bañ le waaye yàlla yonent bi la yoon yónni ci mboolo mbindeef fii moom sayyiduna muhammad pour mu teg leen ci yoon bu jub ñu àgg ci yàlla moo tax nga dégg bu sayru naan kam raayna ayatuhu fahtadayna wa izal xaqu jaa zaala miraau waaw bu sayru nee na kam ñaata yoon raay la ñu gis ayatuhu ay kéemtaanam aw ayatuhu aaya alquraan yi kam raay naa ayatuhu mu jubal ñu xocc ñu jëm ci yàlla jub jëm ci yàlla nag yomb na mais nga gëm ko moo jafe in alladina qaalu rabbuna allahu mooy yàllaa ma moom mais yàlla nee na loolu doyuma summa staqaamu boo ca noppee jubal waaye yàllaa ma moom yomb na parce que wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axiri ndake wa maa hum yuqaadi'uuna allaha walladina amanu wa maa yuqaadi'uuna baax na wa maa yaxda'uuna baax na illa anfusahum te kat wa maa yash'uruuna lii xewi ji mooy fii quluubihim marad fa zaadathum allahu maradan xam nga nga nga amee feebar yaakaar docteur bi pour mu faj la docteur bi yokki la feebar foo jëm foo jëm moo tax abu bakrin siddiq keroog bi muy tagg yonent bi di ñëw ma madinatu munawwara gaa yi dañu ne nañ ko gàttandu ca buntu madinatu munawwara yonent bi moo leen ko wax sax fekk moo ngi ci xabroom mu ne leen abubakar buy dugg ci biir ma madinatu munawwara may jóg man sayyiduna muhammad ndax lim may way ci xolom la ko tubbe hakaza ki woy woy wii anta nuurun wii xanaa xamuloon ni nahnu fii rawdatin ba mu koy way ca kër ga bokkul woon ci xasiida bi déedéet bokkul woon ci xasiida bi dafa way xasiida bi mu xëy ne da koy présenté ji mu Muhammad ci xabram mu àgg fekk kiy garde xabru bi ne ko xa xasiida bi ñëw na fi biig ci guddi yonent bi nee na bég na ci rekk mu sukk ne nax nu fii rawdatin kon nag àgg nañ ci rawdu bi bee nag ca kër ga la woon haadihi lii nag yaqzatun njéeméer la du ay nelaw ci la sukk tagg bayit boobu ci wetu sayyiduna Muhammad ci xabram ndax ku yàlla nangu wayam la moo tax way wi buñ koy way day mel ni yow yaa ngi ca biir àjjana te deewagoo way wi wallahi al azim buñ koy woy day mel ni yaa ngi biir àjjana te deewagoo waaw te buñ koy woy nga gëm ma tuuti dana am fu mu la yóbbu ndax xaal xaal gi ko boroom tàggee fa tabaarakallaahu te juuralu ko kan kenn nekkudut sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mag ñi dañu daan tagg yonante bi di di dem ba ca rawdu bi rek sànni ko ci biir rawdu bi ku tagg benn fooy rek sànni ci biir rawdu bi ku tagg benn fooy sànni ci biir rawdu bi da daan dox ci àll bi bu njëkk ba ba ci yàgg nga for benn fooy lépp nga lii ko ñu tagg ko sayyiduna muhammad borom def ko dikkal te gisul kenn mu sotti ko ci foo yi sànni ko ci àll bi ne ku for xam ni koo koy yonant bi noonu la noonu la gaa yi daan wayee mais muhammadun muhammad ki ñuy wax muhammadu mu naaw yi kooku bi muy tagg yonant bi ci biir mbooloo la profitoo tagg sayiduna muhammad ma misaale ko mbooloo moo xamante ni tànt wu rëy la sëriñ Mouhamadou Ndiaye Jamil taxaw di tagg Sayyiduna Muhammad ñépp di bég ñépp toog di déglu am kenn ku jóg di ruuba mbooloo mi waa ji ne ko xiif taxawal wastami te nga déglu zikra man tagguk sanga ba nga xamante ni anwaaruhu ay leeram lama at moo melaxati ba nga juddu toogal te déglu gars yi dañu daan woye ni mu leen dikkalee maanaam kenn def dara rek mu dikkal leen ñu way waaw fil kainaati ka samsi ka samsi fi samaa'i talaat fil kainaati ci goxi àdduna bi yëpp ka aadaatu tasbiix la ci grammaire ba mel ni jant fi i ci kaw asamaan si talaat boo xamante ne fenk na mëtale fépp huwa sayyiduna muhammad keneen ki da doon tagg yonant bi sëriñ moon njaay ba ñu tuumaal ko ci mbooloo mi mu def ko xasida da doon tagg yonent bi di tagg yonent bi di tagg yonent bi ba ci yàgg am ku ne ci mbooloo mi am na jigéen ju ci ju mu séen ci mbooloo mi nopp ko moo tax buy way côté boobu rek lay tourné ñu ne diw la wala diw la moo tax côté boobu rek lay wayee sànq ba léegi waa ji daal di tëgg wayam ne za amuuni uhibbu hindan wa mayya xat ata za imuuni say an fariya maa ngi lay yëgal ni maali hindin mi ngeen di coow ci mbooloo mi wala li may ya du moom nasibun fii fuaadi fii fuaadi imrain ahabba nabi déggal lool àggale la ilaha illallah kenn du yonent bi Yeah. مصطفى الله من جميع البرايا مجتباه قبيبه قريسيا والله ليس déggal loolu zaamma comme mbooloo ñoo ko déeyoo yónni kenn waa ji def ko waawu jam u zaamu nii tuumaal nañu ma te liñ ma tuumaalee du dëgg uhibbu hindan am na ku ne hind laa nopp ci tànt bi moo tax bu may way côté boobu rek laay xool wa may am ku ne du hind may la sa dëgg dëgg dëgg maa ngi leen di gëñal ni ataa dikkee nañu vaa imu nii ñi ma tuumaal say an fariya lu dul dëgg mu ne maa ngi leen di yëgal ni maa li hindin nasibun fii fu aadi wala li mayya nasibun fii fu aadi hind amul cër ci sama xol mayya amul cër ci sama xol ñu ne ko sa xol lu fa fees mu ne uhibbu hindan wa mayya amu fa cër waaye fii fii fu ah, dimra in ahabba nabii sallallahu alayhi wa sallam mu ne sama xol ku ko laal gaz maareel na ak bëgg sayiduna muhammad maanaam géej la buy sàndi ay duusam ci bëgg sayiduna muhammad moom sama xol ñu ne ko waaw kuy kooku ki nga ne bëggoo kenn ku dul moom koo koy kan waa ji ne mustafallaahi mooy bellub yàlla ja belli ak beddi bokkuñu ci wolof belli mooy ki baax ba kenn xamul noo koy def nga tegee ko ne booy wàñña gaañu baax ñi beddi nag mooy ku bon ba kenn mënta bokk ak moom nga teggi ko ne booy wàññi ñu bon yi nag moo jël première diw dañ koo beddi tegee ne diw ñu belli ko tegee ne la mustafallaahi mooy bellub yàlla ja min jamiil baraaya ci mboolam mbindeef yi kum mën a doon nabi nabee la gën kum mën a doon li kulli nabiyin fil anaami fadilatun nangul nañ leen ko waaye wa jumlatuha majmuatun bi muhammadin xam nga loolu lu la koy wan dawal ci xilaasu zahab yonente yi jibrilu ñaata yoon la wàcc ci ñoom xuz abda ma nazala ruuxul aminu ala ruslin uratibu kay ujda bi nazmihimi yabbun li aadama ah nuunun summata fali nuuhin summa moussa li ibrahima addu bammi daalun li idrissa inse xaasa yaa xaasa yaa inse walil xabibi nekk kuy jaay ker ba jantay suuf nga war koo wanteer balaa moo lamba kaddu alfan fala tayi mi gis nga li kulli nabiyin fil anaami fadilatun waaye lépp boo ko boolee nabi du moroomu kenn ci ñoom kon mustafallahi min jamiil baraya mujtabaahu ismun min asmaai sayiduna muhammad habibahu nag mooy sopp yàlla ja moom rek la yàlla bëgg xuraysiya moo bokk ci giir xuraysin kon danga naan mala al fuaada xuddaati wa sawq wal hawa alaman wa wajdan yaa la tuulal huyaami moo tax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngoog xasida bi ma war a jaar ñu dugg ci xilaasu zahab sëriñ Modou Ndiaye ki ko taalif moo tudd Haaruna Raasid moom mu xaddam la ci sëriñ Babacar si borom bu ne kaare bi waaw Gine Bisaawoo la dëkk Haaruna Raasid la tudd mu wax ci yonante bi lu doy waar def ko tasniya nekk pour wane ne tasniya bi ñaar yëpp bu ma ko amoon ma jur ko ci ëttu sayiduna muhammad te duma ca te duma ca duma ca faale dara lépp lay juural yonante bi ba mu woyee yonante bi bay tëj nag tëjee ko ci seex sayid ahmada tijaani li ci gën a yéeme ci xasida bi xoolal tasniya yi yaa laytani xadd kaana lii sawqaani aw kaana lii jismaani aw ruuxaani sëñ Moon Njaay dégg nga kii li woy way arfu naa la indi di mbébét bu ma ko amoon ma def ko mooy yaa laytanii ak a neexoon ak a neexoon yàlla miy bind ak a neexoon yàlla mi moom bindee fi ak a neexoon yàlla mi mën lu ne te lu mu mënul keneen mënu koo mën te ku ko mën moo la ko mën loo ak a neexoon yàlla moomee xat sa dëgg-dëgg kaana mu nekk rek mu defal ma lii ñeel ma sawqaani ñaari bërëbu yoo xamante ni dama koy bëggee sayyiduna Muhammad sawqaani ñaari cofeel mu ne ñaari yëpp di jóge ci sama jëmm mu bàyyi ma ma bëggee ko yonent bi mu delluwaat ci li sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum waxoon wali kabidun makruhatun may yabi unii biha kabidan laysat bi zaati xuruqi abaaha alayya naas laa yastaruunaha wa man yastari za illatin bi saqiiqi sëriñ cheikh nee na wali kabidun ku dem ba am res boo xamante ni sotti na ba dajal bëgg sayiduna muhammad sëñ Modou res day dajal ci bëgg yonante bi dem ba nga sës ca ba lu la waay waxati rek du la saf ku dul sayiduna muhammad boobu nag beneen affaire la sëriñ cheikh nee na nag dama yore res boo xamante ni bëgg na yonante bi ba dajal te man nag ma bëgg a gi fa mu yem ma bëgg na génnee res bi wut ku soppagul yonante bi ñu wéccoo moom mu continuer di bëgg yonante bi ma tàmbaliwaat à zéro di bëgg sayyiduna Muhammad wali kabidun makruuxa maa ngeeg res boo xamante ni dafa am ay góom may yabi uni biha kabidan kan lay jaay res bii mu jënd ko montal ko boppam di nga am cofeel ci yonante bi gaa waaye man dama bëgg tàmbaliwaat ndax bëgg yonante bi dafa neex man yabiuni biha kabidan laysat bi zaati xuruqi bu amagul góom laa soxla bu soppagul yonante bi abaaha alayya naas Cheikh Tidiane nee na mu génn nag di ko jaay nit ñi abaaha alayya naas waaye laa yastarunaha gisul gisul ku koy jënd mu dem ca buntu marché ba taxaw yëkkati res ba ca kaw naan wa man yastari za illatin bi saqiiqi kuy jënd lu am góom ñu wéccee ko ak lu soppagul yonent bi ma monte ci sama jëmm continue di bëgg sayyiduna Muhammad waaw ah. wa man yastari bi saqiqi waaye nee na laa yastaruunaha mu ne waaye gisuma jëndkat waaye nee na bu ma gisoon jëndkat rek ma tàmbali bëgg sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax waa ji ne yaa laytani ak neexoon xad kaana mu nekk ci sama jëmma lii ñeel ma saw sawqaani ñaari bërëb yoo xamante ni dama koy bëggee naa muhammad mu ne yëpp naag ko jox aw kaana lii jismaani wala sax yàlla may ma ñaari jëmm bu xare taxawee ñaari jëmm yépp ma jox ko jëmmi sayyiduna muhammad ñu dem xeexal lislaam aw kaana lii jismaani aw wala boog ruuxaani yàlla jox ma ñaari ruux ñaari ruux yëpp ma di ko bëggee naa muhammad ndax duma ca yam mu ne aw kaani lii xalbaani wala ñaar yàlla jox ma ñaari xal xol yàlla jox ma ñaari xol mu ne ak a neexoon yàlla defal ma ñaari xol ñaar yëpp laay yebbil sayyiduna muhammad duma ca bàyyi benn aw sabraani wala ñaar yàlla jox ma ñaari barab yoo xamante ni muñukaay la mu ne bu may xeexal lislaam ba ñu may rey naa ko muñ ngir jëmmi sayyiduna muhammad ci ñaar yëpp ñaar yëpp laay muñandoo mun a duma ca yem de aw kaana li aqlaani wala yàlla may ma ñaari xel mun a fu ma toog rek ñaari xel yépp dama koy vider ci jëmmi sayiduna muhammad di ko xalaatee man huwa yonent bi man huwa sayiduna muhammad kuy moom mu ne óor bu ne dama koy xalaatee yonent bi mu ne aw dam aani wala yàlla jox ma ñaari bët yu bokkut ak ñaar yi muy ñeenti bët mu ne ñuy tagg sayiduna muhammad ñeent yépp ma di ko sotti rongoñ ci ngir jëmmi yonent bi waaw ah, ki ci yonante bi gis nga wayin wi ki ya ci yonante bi lépp ñaar-ñaar la ko wut ngir rek jëmmi bi sallallahu alayhi wa sallam wa zub wasal xubban dumuan gadiratan wala taltafit lil xubbi gayraka faaniya seetal loolu xubban dumuan ah إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم الله إيمانا وعلى ربهم يتوكلون sëñ Modou loo wax ah mooy kan mooy alxaaji Mansour bal xaw mi ibnu Seex Seydul Xaaji Malick bàyyu xalifa bu tedd bi Serigne Babacar Sy Mansour mooy bëgg a wax ak yoonu kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sa rongoñ bu woowee ba ba ñuy wax ci yonente bi na nga waññaaru di bërëngu di waññaaru ba ñoddi rongoñ bi sotti ko ngir jëmm yonente bi wasal sottil xubban ngir bëgg sayiduna muhammad dumu an rongañ xasiratan yu bëree bëree bëree bëri bëri mu ni ma jël bu Habib Sarr bi mu ni <laughs> wala taltafit bul geessu lil xub bi ñeel cofeel bi nga am ci sayiduna muhammad xayraka ku dul yonente bi waaye faaniya jéexal tàkk ci yonente bi déggal loolu ànd leen ci ah ah man dama simpalul dara bëgguma lu xumbut moo tax ma ne ànd leen ci man lu xumba rek mahabbatuhu bëgg rasulillah yumnun barke la mahabbatuhu bëgg sayyiduna muhammad wa amnun sécurité la mahabbatuhu bëgg sayyiduna muhammad wa rahmatun yërëmande la wa taksu dinañu ñëwal man ka nga xamante kaana nekk na aariya di aji rafle fii ci àdduna tey tagg yonente bi bu àggee yowmal qiyaam ëllëg yàlla ñëwal la ay mbubbi leer solal la ko ngay daagu ci kanamu ñépp ngir cofeel gi nga amoon ci sayiduna muhammad woo naa toroxta waa xuraysin alaa xuraysun bi daari nidwati tama u xawfa rasul wa najdiyun bi xisbihim yi akamaalin yërëm fa way la xuraysin isqalawhu ba ñu dumbooyoo sayiduna muhammad wa waddahu mu ñu sopp ko lool moom yonent bi man kaana daaiya ma Makka génnee yonent bi di ko dabu ji pour Madina di ko gàttandu pour roy roy ñoo sori woo Makka génnee Nabil Moustapha di ko dabu ji pour rey ko Medina di ko gàttandu pour roy ko ma ray ak roy sori woo moo tax Medina bi mu agsee ñu gàttandu ko ci lañu am seen yiw yëpp ñoom waa madinatu munawwara fa lillahi isaqat jawaadu suraqata qawaimuhu baada rujui yaqulu aba hakami law kunta saahida amama jawaadi wa lajuju jahulu wa jahulu lajuju déggal sëriñ Modou fa <laughs> maa ko daan déggee ci tàntu alaaji bu saaxu falillahi eskay fa lillaahi kawtéef fa lillaahi billaahi isaaxat ba loofoo jawaadu suraaqati naaru góoru suraaqa lan moo loofoo xawaa'imuhu ñaari ndëggam ya baada rujuu i gannaaw ba mu delloo màkkatal mukarrama lu mu wax abu jahlin dama bëgg képp ku jàkkaaroog télé bu tedd bi Cherif Dabakh TV say loxo ca kaw ñu màggal jëmmi Sayyiduna Muhammad ah ah aba hakami ee eh, yow abu jahlin wallahi géñ naa ko ci yàlla law kunta boo nekkoon saahidan ngay aji fekke amaama jawaadi ci wetu naaru góor gi ni muy duggee ci suuf di génneewaat ma naan lamaana yaa rasulallah yi nabi naan suuf gëkk ko ma génnaat man suraaxa taxawaat ci kaw ne foofu daan nooy ma songaat nabi nabi ne suuf wannal ma ko suuf wannaat ko lamaana yaa rasulallah yi ma génnaat mu ne amaama jawaadi boo ko fekkoon di nga yëg ni wallu juuju coow lu bëri jaxulu réeraange la fa wayla xuraysin is xalawhu wa waddahu wa waddahu min alxurabaai xurri man kaana ñi nga xamante ni ñoo ngi madinatu munawara wa waddahu ñoo am cofeel ci sayiduna muhammad min alxurabaai xurri ci gaa ñi nga xamante ni ay boromi leer lañu yu weex tàll alxarraa dana firi leer goo xamante ni gudd fu mu fekk guddi mu dawloo ko déggoo fa yaalahaa laylatal xarraa xat nukki sat fiiha kanaisu wal asnaam alxarraa dana firi leer madinatu munawwara yonent bi dëgmal na ko mu leer naññ ngir jëmmi sayiduna muhammad bàyyi fatimatu bintu rasulillahi jaddul useynu la ku tabadal gaaw na ci dotti ay may yaakaaru jaam yi ëllëg yowmal qiyam an tuuli adama alayhi salaam fa yaatuuna adama alayhi salaam fa yaquluuna ya adama anta abu basar halahaka allahu bi yadihi wa nafaha fiika min ruuxihi asfa lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fiiqi ala tara ila ma qad balagana waay waay inna rabbi qad gadiba yowma gadaba adama lam yadab qablahu mislahu wa lam yadab badahu mislahu fa innani naxaani an sajaratin fa asaytuhu nafsi nafsi madinatu munawwara dëgmal ko sëñ Modou loo teg bil wahyi amiran ku ko ca wuutu ah Yeah. laqad jaahu jibrilu bil wahyi inkaane gi mu amoon ci sayyiduna muhammad nabi wuti ji madinatu munawwar loo teg yaasin wal quraanil hakiimi innaka la minal mursaliina alaa siraatin mustaqiim tanziilal aziizir rahiim li tunzira qawman maa unzira aabaa'uhum fahum ghaafiluun laqad haqqa qawlu alaa aktharihim fahum laa yu'minuun innaa ja'alnaa fii a'naafihim aglaalan fa ilal azqaani fahum mughmaquun wa ja'alnaa min bayni aydiihim saddan baax na suddan baax na fa aghshaynaahum fahum laa yubsiruun wa sawaa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun innamaa tunziru man ittaba'al dhikra wa khashiya rahmaanu bil ghaybi fabashshirhu maghfiratan wa ajran kariiman innaa nahnu nuhyil mawtaa wa naktubu maa qaddamuu wa aathaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fii imaamin mubiin وياسين ah lan la ca def mu wa yaasiinu yenent bi ñuy wax yaasiin sëñ Moodu kenn amul lay ku ne bu ma amoon doom ju tuddee ko nabi da ko narul woon boo amee jigéen mën nga koo tuddee nabi waaw yaasin ismun min asmaa'i sayyiduna muhammad moo tax ki ne bu doon góor ma tuddee ko nabi déedéet bu dee jigéen tuddee ko yaasin ba tey nabi nga ko tuddee wa yaasinu yonent bi ñuy wax yaasin muy yaasinu yaqra'u yaasinan fa jaa lahu wiqaayatun lam yanal man kaana fil ujami wa yaasinu yonent bi ñuy wax yaasin yaquzu ngëb na xabdatan akub ngëb yaquzu tubb na xabdatan akub ngëb ci suuf wa yaqra'u mu jàng ca sóoratu yaasin is yu siixumu ba mu ko suuyee ñi taxaw ca bunt ba yéefar ya ñoom ñëpp nelaw moom moo sayyiduna na bi ñëw ba jege leen mënul génn jibrilu moo ne cëpp ci wetam ne ko yàlla nee na am nga ndigal romb leen ñoom ñëpp ñoo ngi nelaw ca ëllëg sa jigéen ñiy dem marché ñoo leen fekk foofu ñoom ñëpp ñuy xaran ñii di yuut ñii jaaxaan ñii nelawee nelaw yu bon xam nga ku ñu bett da ngay ñaawi nelaw ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngay yuut nabi romb leen dem bu yàgg jigéen ñi yee leen ne ana ki ngeen di xaar mu ne bàyyi bañ fekk ko ci biir ñoom ñëpp ñu duggandoo fekk na bi génn na bu yàgg ba dem yoonam yaqra'u iz yufsihimu mutaadiya yusaahibuhu siddiqu yusaahibuhu siddiqu fi kulli mawtinin ah nabi jël na fukki première ak ñaar aboubacar jël fukki deuxième ak ñaar saanihi fil islaami aboubacar la wa saanihi fil muminina aboubacar la wa saanii i fi makkata almukarrama abu bakar la wa saanii i fi xuruji makkata almukarrama abu bakar la wa saanii i fi tariqati madinatu munawara abu bakar la wa saanii fi duxuuli madinatu munawara aboubacar la wa saanii fi madinatu munawara aboubacar la wa saanii fi naxsihi aboubacar la wa saanii fi qabrihi aboubacar la wa saanii fi lbaasi aboubacar la wa saanii fi ljannati aboubacarin siddiq la wallaahi yu saahibuhu àndaale nag moom as-siddiqu kay aju dëggu ko sëriñ Moodu sa góor ga Seex Sayyidul Haaji Maalik kenn du moom doo dem benn téere fekk fa turu Aboubacar Siddiq yépp mu mët xam nga Aboubacar Rafiq baax na Aboubacar Saddiq baax na Aboubacar Atiq baax na ñett yépp sa góor gaa ko way Seex Sayyidul Haaji Maalik jaa rasulu atiqan fii taannuqi nahwa zahirati fi hammin wa mu'tadimi ni'ma rafiq tur waa ngoog islaalu sayidina siddiq ñetteelu tur waa ngoog yépp la Maodo dëxëñ ci xilaasu baax ah Maodo ku yéem ah abubakar a ànd ak sayiduna muhammad man kaana xaafiya lépp lu ko war a gaañ abubakar jiitu ca nabi bi ñuy dugg ci xuntu wa wal maalu lil gaari abdullahi xaamilahu xul asma xarat jaddaha min al irami kooka aboubacar moo njëkk dugg ca biir xuntu wa mu dugg nabi taxaw ci bunt bi aboubacar ne nabi may ma ma dugg ci biir xuntu wi ma seet luy gaañe bu fa nekkee ma dégagé ko nga door a dugg ci biir xuntu wi aboubacar séen fa ay pax summi yëram di xotti di sànc pax yi di xotti di sànc pax yi ba pax yépp yëpp fattu mu des benn pax aboubacar sës ca loxoom nabi njegenaayu ci pooju Aboubacar di nelaw ndake pax ba am na lu ca ne muut loo teg ah wa kahana ilaa xar ars ca biir xuntu woowa Aboubacar moo fa aar Sayyiduna Muhammad dugg nabi dugg ci biir nabi toog ca xuntu woo Seydi Hadji Malick nee na am nañ fa ñetti fan waxarra jiima layaali la Maodo wax ñetti guddi am nañ ko ca biir kuntuwa Maodo nee na li ñu doon xaar it xam naa ko ñu ne Seydi Hadji Malick lu ñu doon xaar mu ne madinatu munawwara bu ñu àggee dañ fa war a am pàkk te war nañoo yóbbaale alal te Aboubacar baayam Abu Xuqaaxata moo nangu caabi kopparfooru Aboubacar ne moo ngi ne la génn ànd ak waa ji di dem Aboubacar dema ne bi muy génn màkkatal mukarrama ay 11 fekk moo ëpp alal ca màkkatal mukarrama 3 heures ci ngoon mu ñàkk ba ku ko may ñaar dërëm lay wër ndax topp sayyiduna Muhammad ne ko naa dëgmal dëgg du mbooyu fen ànd ak yonent bi ba ñu dugg madinatu munawwara moo tax bi ñuy génn rek yàlla na jibrilu dawal lil fuqaraai muhaajirina allazina uxriju min diyaarihim wa amwalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana wéy wa yansuruuna laa wa rasulahu ulaika humu saadiquuna mu ne ko koteel aaya bi foofu ba ñu dugg madinatu munawwara nga ne cëpp ci wetu nabi yeggalil ma ko gaañ a génn seen kër ya di maye yàlla na jibrilu dawal wallazina tabawwau daara wal imaana min qablihim yuhibuuna man xaajara ilayhim wala yajiduuna fii sudurihim xaajatan mimmaa utu wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuqa suqa nafsihi fa ulaika humul muflixuuna Modou Lo teg ah wa kaana sëñ Modou abra'atin dallat makidato isma yusuqu fuyul alxaasid alxarami wala abra'atin dallat makidato ilaha illallah kenn du yonent fa tabaarakallaahu jërëjëf sëriñ Moon Njaay Jamil yàlla na yàlla fay la mu mel ni ñu dugg ci téere bu màgg bi di xilaasu zahab nga xam ni ñoo ngi tolloon keroog fi góor gi yéegee ci kaw doju sabiir di ñaan yàlla subhaanahu wa pour noon yi bañ kaaba gi wax naa la ñaan nga keroog góor gi ne yaa rabbi laa arju lahum siwaaka yaa rabbi famna minhum xamaaka inna udduwal bayti man aadaaka famnahum an yaxrubu xarraaka lahum anna almara yamnau rixlahu famna rixaalaka wansur ala aali salibin wa aidihi alyowma lakka la yaglibanna salibuhum wa muxaaluhum abadan muxaaluka góor gi loolu la ñaan keroog ba abraha ñëwee di toj kaaba ga sayidul xaaji malik nee na góor gi abdu talib dem yéeg ca kaw montagne ba ñaan loolu kon wa aaba dellu na yadu u muy ñaan ilaahal bayti boroom néeg bi muy yàlla subhaanahu wa taala la nekk muy xeebu óor bu ne ci ñaanam di bëgg yàlla nangu ñaan wi muy toroxlu mubtahilan muy toroxlu an yam naa pour mu tere albayta néeg bi an lu lusami ci ay noonam ya nga xamante ne dañoo bàkkaaru bëgg rek yàlla tere leen néeg bi abraha taxaw ak i nitam waaye bi mu demee ba jub kaaba ga ma baamtuwaat ko abraha amatul xel te ñey wi mu war ñey waa ngi des ak xel ah kam raayna maa laysa yaqilu qad ulhima maa laysa yulhamu al uqalaau is abal fiilu ma ata saahibal fiil lam yan fa il hija wa zakaaw dégg nga lool wallaay ndeysaan السعادة والخير محمد الأمين وتقيسا وهكذا نجمع محمد الأمين إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل محمد الأمين إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل ولم ينفع الحجاوة أي محمد الأمين أي فالنسك والعبادة والقلب alifa nusuka wal ibadata wal xalq wallaay day alifa nusuka wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujabau kam raayna ma laysa yaqilu qad ulhima ما ليس يلهم العقلاء إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل لم ينفع الحجا وذكاء dégg nga bu sëy bayit bi ñu awoo ak bi ñu woy doo xam ban moo dàq kam ñaata yoon raay naa la ñu gis maa loo xamante ni laysa yaqilu amul xel xad ulhima ñu yenkawal ko maa laysa yulhamul uqalaa lu ñu yenkawalul borom xel ñu ne busayru lu la koy wan mu ne is mooy waskur fàttalikul abaa ba bañee alfiilu ñey wa maa ataa lu mu utilise saahibul fiil borom ñey wi lam yan fa a jëriñu ko alxijaa xelam wala zaka udu caagun ñawteem benn jëriñu ko ndax dafa jub kaaba gi di làbbali ñey wi ñey wi di en ci ginnaaw ngir bañ toj ji kaaba gi Seydul Haaji Malik ne góor gi Abdou Moutalib ba mu yëgee loolu mu génn raqaa mu yéeg sabiiran ci doju sabiir xaliilan lu tuuti la yéeg Seydi Aj Malik nee na soriwul ci kaw ndax doj ba bu ñu doon ñaan boo yéegee ba ci kaw ñaan ba mooy gën a gaaw a nangu boo yemee ci cet li waaye keroog tojub kaago bi ba mu amee Seydi Aj Malik nee na góor gi soriwul ci biir raqaa dafa yéeg rek sabiiran doju sabiir xaliilan lu tuuti summa topp alaa mu wax ubu nañu dellu xaala mu wax alaa dema ni alaa xarfu tanbiix la ci grammaire Seydi Aj Malik bëri na lu mu koy wayee sëriñ Modou ndax fekk nit di nelaw nga di ko waar du la dégg xarfu tanbiix tanbiix mooy nga yee nit ki Seydi Aj Malik bëri na lu mu koy wayee ci ay wayam waaw alaa innahu fi sabri ka tawdin jalaala yatiibu iza taabal usulu fusulu wa yaqtumu man aataahu summan li sinwihi maxaafata saari walkarimu xamuulu wa zawjatuhu xaabat bi aksari xayba saqathu summan kay yazida fuduulu ca Seex Seydi Haaji Maalik Maodo dafa bëri lu muy waye baatu ala Maodo ne xaala góor gi daal di wax ala waawee uubu nañu dellu uubu nañu ñibbi lanaa ñeel nañu azufru yaani lana fa faw fawzun texe ñeel nañu ngañaay ñeel nañu ndax ni ni ni këf gi yëngatoo mu leer ba mel ni weer mësul am bu ñu dee ñaan te ci cet li rek lañu yem tàllal loxo ñaan yàlla yàlla nangu na suñ ñaan nañ dellu dana aar kaaba ga ab raxa du ca mën dara Seydi Hadji Malick nee na xaqan sa dëgg-dëgg jaa dikk na minal xaqami ci yàlla mi nga xamante ni mooy aji xereñ moome ñëpp subhanahu wa taala ñu ne góor gi lan mooy firnde bi ci na nangu nañu ñaan wi góor gi ne dama gis ni fa mastadaarat dégg loolu ah, ah. ah. yaa wayla li mujtarin tabarakallah لا اله الا الله après nga woyat Seydul Xaaji Malik ne ñu laaj góor gi lan mooy firnde bi góor gi ne damaa xam ni famastadaarat xilaalan xawmu xurratuna illaa lanal fawzu yaa way lan li mujtarimi Seydi Haaji Malik nee na góor gi dafa ni dama gis ni famasta daarat mësta windeelu famasta daarat mësta leeral famasta mësta koccal waaw famasta daarat xilaalan mësta leer lu doy ni weer xilaalan maanaam bu ñu doon ñaan ba am fett fett bu fett ci kaw montagne bi ne tey fay ci la ñuy yëg ni ñaan ba nangu na alaamatu ijaaba la ci ñoom waaye jour bi ñu yéegee ci kaw montagne bi tuuti rek la ñu tàllal loxo yi di waaja a wax ak yàlla góor gi ñaan ñaan bi ba noppi rek mu tàkk lu doy ni weer hilaalan illaa lu dul lanaa ñeel nañu alfawzu ngañaay mu ne am nañu ndam kaaba gi du daanu mukk am nañu ndam kaaba gi du daanu mukk xaw mi yéen samay nit xurratunaa weex-weex bii feeñ ci kaw illaa lu dul lanaa ñeel nañu alfawzu ngañaay yaa woonaa waylan torox tàng li muj mi ñeel waay bàkkaaru yi ñii bàkkaaru bëgg toj ci kaaba gi woonaa seen torox tàng tey tey rek lañuy torox góor gi Abdu Mutalib ndake booba bi yàlla nangee ñaanam ubbil na ko juróom-ñaari asamaan mu yëg ni tayran ababil la ñoo ngi waaj a ñëw yëg na ko mahmuduhu fa abul abbaasi kunyatuhu kunyatuhu fa abul abbaasi mahmuduhu waaw dañ koy dàkkantelee ñey wi abraha wayoon waroon lañu ñu doon dàkkantelee abul abbas kunyatuhu waaye ñey wa nag dafa am fu mu yem de fa fil mu xammasi mu xammas benn para palaas la mu ngi ci diggante musdalifa ak minam foofu la abraha yegg ñey wa bañ fa fil xammasi ca xur wi ñuy wax mu xammas yaa ba ca la bañee alxasda pour dëgmal lil xarami kaaba gi ñey wi lànk ne du dem waaye fa fil mu xammasi maata abu rigaal góor gi ñuy wax abu rigaal abraha dafa réer xamatul yoonu kaaba gi mu taxaw ne ko boo jaaree nii wàcc ci kaw montagne bii booy tourne di yéegaat ci kaw booy sëpp rek di seen kaaba gi dafa tegtal ba noppi abraha di dem ca kaaba ga mu daanu dee maw doon ko cité ci biir sarxa bi Cheikh Seydul Haaji Malick du bàyyi benn détail fa fil mu xammasi ca xur woowu yaaba la bañee alxasda pour mu jubal lil xarami ñeel kaaba ga waaye ba ñu demee ba àgg foofa bayit bi moo du mujj sëñ moo du mujjee way alayhimu arsala arrahmanu xiina ataw lan toyran fu ñu jóge ababila luñ def tarmihim ci lan min al irami Seydi Hadji Malick Maodo nee na bi ñu àggee foofu nag góor gi ñuy wax Nufaylu ibnu Habib la Maodo cité ci sarxa bi moo way ay way way yi nag nee na gaañi ni ñu doon dawee bi mbugal bi ñëwee lool la way mu ne xiina ra'a maa anzala allahu bihim min nixmatin ayna almafarru wal adillatu wa taalibu wal asramu almaghlubu gayrul ghalib anna ayaati rabbina bayyinatin maa yumaara bihinna illa alkafuura xabasa hmm? alfiilu bilmugammasi xataa dalla yuxibu ka annahu magfuura xawlahu min rijaalin kandatin fataaya rasalaatin fi lqurubi suxuru góor gi loolu la way ci sarxa bi Seydi Aj Malik gis wayam bëggoon a wax loolu ci sarxa bi li mu wax mu gis wayu kooku àbb ko foom mi bosom maw doo baax heure bu ne buy bëgg a woy dara rekk bu gisee ku ko woy ba pare sa bos lay àbb dugal ci téeram te si te tudd sa tur ne diwa ko woy woyuma ko fii si bi yow ma sina dégg nga Maodo waxaala sahlubnu abdullahi zulwazami moo ko wax du sama wax lillaahi darru xat xaala maadixahu kooku Maodo waxu ko Muhammad al Andalisi moo ko wax Maodo bëgg a way way bu ne mel seen kooko wax ko ci téeram mu àbb ko ci téeram dugal ci téeram bind turu nit ki ñaanal ko ñaanal ko ba noppi nekk door wax wayam lillaahi darru xat xaala maadixahu ba noppi ñaanal ko door indi wayam fal urbu xayru unaasin Seydi Hadj Malick ku ku doy waar la moom Maodo. Moodu da ngay wax abal ma ma wax abala. sababu way bi may abal ma wax leen sababu way wi Seydul Xaaji moo toog ci néegam sëñ Babacar toog ci wetam benn waay ñëw taxaw ci bunt bi di way njool faama di ko way di ko way ba yaramu góor gi tàng góor gi yore ñetti dërëmi ngurdu mu jël benn dërëm bi jox ko sëñ Babacar ne ko demal ci kiy way nga jox ko benn dërëm bii nga ne ko mu noppi ba yowmal qiyaam ndax xaju fi sëñ Babacar àgg ci waa ji jox ko dërëmu ngurdu bi ne ko sëri Seydul Xaaji Maalik nee na nga yokki sa baat mu wax ko lan moo du dégg ndigal gën a aj baatam di way rek njool ma sëñ Babacar ñëw toogaat Seydul Xaaji Maalik ne ko waaw xanaa joxu ko dërëmu ngurdu bi nga ne ko mu noppi mun a jox naa ko de waaye nit ñi ak seen cofeel kenn xamul dara ci ñoom mu ne ko tojal ñaari dërëmu ngurdu yi nga joxal ma ko beneen dërëm bi te nga ne ko baax na mu noppi ba yowmal qiyaam ndax way ma xaju fi sëñ Babacar dolli ko ñaar dërëm yi ne ko Seydul Haaji Malick nee na joxoon na la benn dërëm nga yokki sa baat dolli na la gën a la yokki mu wax lan Yeah. moo tax olof ne moo tax olof ne baykatu tàkkusaan ku ko nàmmal illeeram yokki bayam firikat buy door a jóg ne dara rek nga dóor ko <laughs> cinquante mille lu mu xam ci mbind dana ñëw ci bopp bi baykatu tàkkusaan ku ko nàmmal illeeram yokki bayam <laughs> am déet <laughs> am déet sëñ Maodo ba mu ko joxee loola mu dellu toogaat waaja gën a nàmm baatam yëkkati ko ca kaw Seydi Hadji Malick ne ko moo baabakar mu ne ah mu ngoog de nit ñi ak seen cofeel lekk mu ne ko waa jox ko ñetteelu dërëm bii ta nga ne ko nag mu noppi ba yowmal qiyaam bu pënd ba wuree daañu xam ki war fas ak ki war mbaam bu ñu ne tëll yowmal qiyaam nu ay maan wax lu saf ree bu ñëpp reetaanee daañ xàmmee ñi jaal ak ñi jaalut ne ko mu bàyyi ba ëllëg sëñ kër génn jox waa ji dërëm bi ne ko Maodo nee na bi mu la joxee dërëm yaa nga doon woy bu baax mu dolli la ñaar dërëm nga yokki sa baat

من يرى ما في الدنيا la ilaha illallah lii ba jàmm la kon alayhim wa arsala arrahman xiina ataw seex sayidul xaaji malik nee na arsala yebal na alayhim ci ñoom yéefar yi arrahmaanu yàlla mi yore yërëmandey kaw ak yërëmandey suuf xiina ataw ba mu leen dikkalee toyran ay picc ababil la ñu génnee ci safara ababil téye ay doj tarmihim ñu leen di sàndi bi xijaaratin ci ay doj doj ya la ca gën a yéeme buñ ko sàndee mu dal ab yéefar ci boppam day sar ba ca tànk yi dugg juróom-ñaari suuf door a génnaat dellu fa mu jógee yàlla yebal ko mu ñëw Nufaylu ibnu Habib nee na xiina raa ba ñu gisee maa anzala la mu wàccee allahu yàlla bihim ci ñoom min niqmatin ci mbugal aynal ma farru gaa yi naan fu ñu war a jaar ba daw tey ban yoon lañu war a jaar ba daw ba rëcc mbugal mi ndax mbugal mi wër na leen ñoom ñëpp te kenn amul fooy jaar ñu yuuxu mu ne bu amul sax aynal ma farru wal adillatu ku ñuy tegtal yoon bu ñuy jaar ba daw mu ne bu amul ku ñuy tegtal wa taalibu ay waay ku ñuy dimbali ku ñuy dimbali lañu bëgg a tey ndax mbugal bii bu ñu yégoon ni bu ñëwee nii lay mel du ñu jóg ànd ak abraha di toje ci kaaba ay waay ku ñuy dimbali ñoom ñépp ñuy yuuxu wal asramu abraha asram la tudd almaxluubu gayra xaalib ñoom moom dañ ko not mais notul notul mbugal mi ñëw ci kawam mook ñi mu àndal yépp mbugal bi not leen moom abraha amul fu mu jëm kon an na ayaati rabbina naka kéemtaanu suñu borom buy ñëw ci kaw doom doomu aadama bayyinaatin lu leer lay doon loo mën a teg bët waaw parce que walillahi junudu samawati wal ardi sëriñ Cheikh nee na nag bul xam junut yi lan la mu ne yàlla bu nee walillahi junudu samawati wal ardi mun a dawal ndax doo xam lan la bu dee ab buur la yàlla yebal ab yoo mu dugg ci noppam di yuuxu ba mu jaaree fa dee kon walillahi junudu samawati wal ardi kenn xamul ni ñu toll mu ne mbugalu yàlla nekk kenn du ko werante kenn du ko laam-laame lu dul ki nar a weddi te bu ñëwee dal ci kawam dana ko alax mu ne foofee nekk xabasal fiilu ñay yi sukk nañu mënuñu dem ñay wa ba dem sax ba ne xaala salaamun ala nuuril munir bada yaa abdu mutalibin fii zahrikal karam ah ñay dem ba wax loolu mu ne ay waay leer wi di foloote ci ndiggal góor gi Abdou Moutalib leer wii leeri lan la moo ngi ci sa ndigg di foloote leer waa ngi nii ci sa ndigg ñay wi di wax ak moom te Abraha mënul gis leer te ñay wi mu war moo ko gis ñay woowu buuru najaasi yu Seydul Haaji Malik nee na ci sarxa bi moo ko ko joxoon haddiyee ñay wu rëy la boo gisee ñu koy wanee asfiya yi dangay gis ñay wu rëy tiim ñay yi fa tabaarakallaahu noonu la affaire bi demee waaw Seydi Hadji Malick nee na fiilu euh, euh, nu faylu nee na tëj nañu ñey bil mu xammasi ci xur wi ñuy wax mu xammas xatta dalla ba ñu torox fa mbugal ba fekk leen fa ba toroxal leen fa ñoom ñépp kenn mënta raw abraha leer wa leer wa boole koog euh, ñamu am ñépp lëndamaay wa ak mbugal ko wër leen ba ñoom kenn amul fooy jaar yàlla bu naree mbugal bu ñëwee rek nga xam ni ñëw na waaw alaaji bu saaxu nee na yàlla buur bu jara moytu la mu bu ko kenn tooñee ñëpp lay boole moom rek ko ko sañ ne kenn naa koy tooñ mu boole ñëpp wa taqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa kon waalamu anna allaha sadidul iqaab te sax ñun dañ koy def léeg-léeg kenn tooñ la nga nga nga nga boole ñëpp waaw waaw ay sànq lañ yéeg ci sa tànk yi yéegul toog ci suuf kay lu ci yoonu rey gi mais boo dee fëggatu yi di leen raatale dëggaale yi kenn tooñ nga rey ñëpp <laughs> sëñ Modou ñun sax dañ koy def ah, ah moo tax mu ne mbugalu yàlla buy ñëw du fa bàyyi képp ku fa ne te bokkoon ca ñu doon coow di jàkkaarloo ak yàlla moo tax Seydul Xaaji Malik ne yàlla yebal na ay picc ñu ñëw sànni leen ay xeer wa ma wa mahzana nuuru la maaba wa

عبدك وله الخلائق من جن ومن وقبل قبل نبي وسليا يا إله بالوكفي الله أبدا أنا محمدنا المختار في الفترتين حبيبتين بلبن كل ليل wa maxzana nuur lamma aaba abrahat aw abrahatun wa xayaba allahu zannan afbaha arrajami seex sayidul haaji malik si sama benn mag dafa ne Maodo ku ko xool ak fotom ni mu ñebee nga xam ni ku maandu la woon mbayit yëg nga ni Abraha deeweewul ca barab ba fa piccee di di di xaañ gaa yi ay xeer Abraha deewe fa de moom dañ ko may bunt muy daw rek ba mel ni ku rëcc la daloon suñu benn garaat dafa dugg ci match bi gaa yi bàyyi ko muy daw ak bal bi di jëm ca kaaya mu foog ne duut na ñëpp dem ba àgg ca kaaya sonn nekk taxaw di xool bal bi mënu koo dugal Afraxa loolu lañ ko defal waaw dañ ko may bunt muy daw rek ba àgg kër ga ba toog ci diggante ñaari soxndam yi nar a nettali li xew fa la ko xeeram fekk oh. ba toog ba nar a nettali la xew ak ni mu rëccee fa la ko xeeram toog fekk moo tax am na ñuy wax wa mahzanu magasin wu leer déedéet man duma fire noonu dama naan wa mahzanu berna a nuuru leer gi daan alak gaa yi abrahata abraha lamma aaba ba mu delloo ba àgg kër ga moom abraha ba mu delloo ba àgg kër ga waxa yebba mu njortu allahu ci yàlla zannan akub njortu mu am njort bu rafet ci yàlla fi mu toog ci diggante ñaari soxndam rek af bahar rajam xeeram door a jam ci kawam moom abraha leer gi def ko ber génne ko ci biir gaañ yi ne ko comme yaa war ñey wi ëpp ci ñey yi ñey wa moom kenn reyu ko ndax ñey waa wax xaala euh, xaala salaamun ala nuurul munir wax jooju moo tax ñey wow mucc mais Abraha ba mu àggee ba nar a nettali xam nga nettali goo toog ci sa diggante ñaari soxna di nga wane sa njàmbaar te fekk dangaa daw ba fàtt say dàll waaw wane sa njàmbaar ngay def loolu la bëggoon a def farleer wi fekk ko fa raa manaaman aziman qaiman fadian wa qiila in saddaqat ruyaakab fabtasim dégg nga Seydi Hadji Malick raa gis na manaaman ci ay nelaw aziman lu rëy i man mu jóg toog fasi an mu ànd koo tiit kan moo gis loolu góor gi Abdu Mutalib dafa tëdd gént déglul gént gi mu gént ndiggam benn garab sax ci garab ga wuti juróom-ñaari asamaan garab ga nekk benn waxambaane ñëw na taxaw ci wetam téye jaasi di ko garde rey si dajaloo ne dañuy gor garab gi pour mu daanu góor googu nekk jàmbaar boobu di attaquer garab gi pour kenn bañ koo gor mu jóg nag laaji ji gént gi benn jigéen ju doon firi gént jigéen ji ne ko waxii la mu ne ko in saddaqat bu fekkee ne wax nga dëgg ci sa gént gii ruyaaka ci sa gént gii fabtasi mi muuñal muuñal de dana am ku juddoo ci yow koo xamante ni ëllëg dana am ku ko jege lool kooku mooy waxambaane bi taxaw di défendre garab gi huwa sayidina alin alyawma ahmi wa jismi wa diini bi saarimi yalmau fi lyamini wa bi sirri taaha mustapha muhammad salallahu alayhi wa sallam zil izzi wal ifdali wa tamkini ya ayuha almuxtaar absir ya nabiyu fa anna saahiru li diini ya qutbat almuxtaar ala ya ahla alxaybar udxulu diina nabi wa illa sa aqtulukum bi sayfi sayidina alin moo taxawoon téye jaasi bi ne garab gi kenn du ko gor mu ne ñi waroon garab gi bëggoon koo daanal nekk mooy waa rey xuraysin yi bañ yidu naa muhammad ne du fi wootee diina lislaam mu ne garab ga li tax mu jebbi nag ba dugg ci kaw asamaan mooy lislaam dina demee noona waaye nag kooko ci sa ndigg la koy la ko yàlla di génnee ba muy wax wax ja ci suuf la ko wax ndànk la ko wax wax ko góor gi ab Abdou Moutalib Seex Seydul Haaji Malik ak noppam ya toll ca Tiwaawoon dégg wax ja ba dugal ko ci téeram la yuxrijanna ilaahi Maodo way wax ja te wax ja ci suuf lañ ko wax la gëñ naa yuxrijanna dana juddoo dana génne ci sa ndigg yow góor gi ilaahi yàlla mi nekk ci kaw kawe lool kal kaw ci kaw ba kaw du daanu suñu kaw min ka ci yow man sang boo xamante ni tabiat daan ko topp lawoo ñeel ko alxalaayiqu mboolam mbindeef yi min jinnin moo xam jinn la wa min nasabin moo xam nit la ñépp dañ ko topp ji ëllëg ki ngay dégg eh, sang bu tedd boobu wax wax yu rafet ya ca sëriñ moon njaay jamil keroog ma di ko dégg ma eh, di ko dégg gars yi di ko wax te déglooguma ko gisaguma ko muy papa Abdoul Aziz Mbaye mu di ko seedal ci ni muy wayee nit a nit a toog wax ma ko mais video maa ngi koy wër gisuma ko bu ngeen ko amee ngeen envoyé muy wax wax yu rafet ci sëriñ Moon Njaay Jamil bii ti ci ni mu fonkee way yi Abdoul Aziz Mbaye bu ngeen seetloo ci tele bi buy way woy wii ba àgg ci la yuxrijanna ilaahi minka man tabi at bi nii la def ñaari loxoom dafa xam li muy woy moo tax man tabi at nii la def ñaari loxoom laxul xalaayiqu mu yëkkati ñaari loxo ya ca kaw min jinnin doon bi wa min nasami doon bii da doon junj way wi ba tey en même temps moo ngi waxaale aawukat yi ni na ngeen wax lii ma wax moom ku yàlla dimbali la moom def leen waxaale ba noppi fekk woy wi la doon junj ah dégg loolu min déggal loolu déggal sëñ ni mu ko waxee kon wax jàngoog Seydi Hadji Malick ne la yuxrijanna dana génn dana génni ilaahi suñu borom min ci yow man sang boo xamante ni tabi daan ko topp lëhoo ñeel ko moom sanga boobee alxalaayiqu mboolom mbindeef yi min jinnin moo xam jinn la wa min nasabin moo xam nit la quatre bayit moo ci des sëñ Moodu nga ñaxatu ko ma firi ko ñuy tëj bunt bi Seyidul Xaaji Malik moo ngee gàggante fii nee na njuumta la ci siira wax ji wa xatta xaalu baadu fatimatan Maodo nee na njuumte ci siira dañu ne waxat tazawaja may nañ ko mu sëyëg bi fatimatan ci fatima baadu xaalu baadu fatimatan xaalu yaani ahlul jumhur boroom xam-xam yi ñoo bokk wax ci seen téere ni ne ginnaaw xew-xewu ñay yi loolu mënul ne sëñ Modou loolu mënul ne ginnaaw xew-xewu ñay yi ci lañu may góor gi Abdou Moutalib soxna si ñuy wax faatima te sàmmalat mu meññee ca bi abi haadi Abdullahi Maodo ne loolu mënul ne ila niami jëm ci xéewal déedéet nuunee lu Maodo wax baada nuunin bi aamin fiili yowman baada nuunin kon lii mënul ne lii bu naree ne danga dellu 40 ci ginnaaw te xew-xewu ñay yi ak juddub yonent bi cinquante jours la la Maodo wax bi amin fii li yowman baada nuunin Seydi Hadji Malick ne nekk njuumta la ci siira dañu ne waxat tazawaja may nañ ko xaalu ñoom boroom xam-xam yi ñoo ko wax baadu ginnaaw xew-xewu ñayi fatimatan fatima te sàmmalat mu meññee ca bi abil haadi ci abdullahi baayu kiy gindee mbindeef yi muy sayiduna muhammad ila niami jëm ci xéewal te daajmal neen laakin na laakin na li am te xew arfu istidrak la ci grammaire zalika lii fil masxuur yi ci lu siiw mumtani un dañ koy tere sax ci nettali ndax jekkut taswiruhu di ko melal sax Maodo nee na duma la wax ni tegewul yoon nekkoo ci dëgg waaye raaji dellul maa ami min fi nuzumi ci li ñu nosa ci téere yi Seydi Hadji Malick nee boo delloo ci lañu ñu nosat ci téere yi di nga gis ni wax ji doonul wax ju siiw waaw doonul wax ju siiw Seydi Hadji Malick nee na góor gi Abdullahi nekk ñii la bokkal ñooñu nekk ñii doon baay ci Sayyiduna Muhammad ñii doon bàjjan ci moom kon waa abda kaabata cala jaat minhu abda manaafin cala ma zubayrin cala abdullahi xayri ximiine mooy caat waaye moo gën ci ñoom moom abdullahi mi jur sayiduna muhammad ndax jur gi mu jur yonente bi moo tax mu gën leen ñoom ñëpp umaymata bàjjam la barata bàjjanam la bayda bàjjanam la atikatan bàjjanam la arwa bàjjanam la asiqaa ñooñu ñoo xotteekoo ci abdullahi Seydi Hadj Malick a yéeme asiqa abdillahi mi boo waxee lii nga màng koom yàlla nañu yàlla defal jàmm buntu yaa way la abrahata fa la beneen dimaas ak beneen waykat ñu daal di dugg wa haza jurhum fa tabarakallahu sëriñ Modou dañu lay jox nga dugg ci Cheikh Seydi Ahmada Tidiane ca nanga ko daan defee nga tëjee ko jotaay bi ndax loolu moom mënul ñàkk boo paree insha allahu rabbi ñu jox la say kàddu nga nuyu ñi nga war a nuyu ak lan ca war a teg Cheikh Seydi Ahmad tiijaan yi naan Moustapha maamam xam ngeen ni maam kenn du ko gën a bëgg sëtam wa Ahmadu li mu xamani yee wali dil wali nag lil jaddi ah madada xutbal wujudi wa ni'matal akwaani Serigne Babacar borom boni kaare bi nee na yaa raa'ilal mutashabihat yaa rubbaani ريحاني أدي الألوكة من أسير علاقة خاسر واجس مدة أزمان أدي البيان لأهلها متشائفا بالوافدين والجملة سكان لولا مع جيل الحكيم إلى أنا عرفوا بما أحوي بها ساساني لا تقصرا نتوسلا وتضرعا شيخ تجان الله بالعين و تجاني سلمى وسلم زيادة بتعرب كذوي الغرابة الزائغين أوتاني بحر تمو وجعاله ويفيد من شيخ تجان إذن المهيمن البارئ أكواني يغني الخواسد إذ أتوا لآلهم تجان متفاعم الأضاب مرجاني يوم بدت تغير الورى بتغير من كل ناع ناذرين والعاني وتشعشعت أدواؤها وصياؤها ودعوا بالأخبار وال بلداني كم شهدت عين الحقيق حتى عينها بالله وتكشف الأنفر حيحين نوراني هذا الذي إنسان عين حقيقة شيخ تجال متصرفا بأقائقه إرباني هذا الذي كان مميتا وعائلا بيت الولاية إله إلا الله بيبان هذا الذي قد نال رضوان العليم منزل الآيات من القرآن وهوى بمردات العليم بسمغير مقتضى القرآن والقرآن ختم الولاية ما غفى أمر به ختم الولاية ما غفى أمر به البحرين عين عناية بوراثة من منعة الرحمن وتواتر كردب له من بعد ما ردب بلا حزن ولكن ما نسر بابك نسر جنب ختم الولاية يبما غبا أمر به بالنجل الولي المختار النيل الجد أحمد داني هذا سليل محمد ذا سالم حقا أبوه وقدوة الأزمان سرين بابكر وين سرين ينبا ختم بلا يبا ما غبا عقبة هو عقدة هو عمدة هو تربة الإخوان هو رحمة وهداة وكفاية ومطية هو النغلة الإنسان سرين بابكر وين سرين ينبا ختم الولاية يدما غما أمر به ثبات la ilaha illa allah yakfi suluka bi an il burhani man kaana yadxulu yanal bi shafaatin min gayri haddillah wala mizaani fa salaatu cheikh bi silaati daamat ala ayni naimi wa sayid al ayaani sëriñ Babacar nee na xatamal wilaaya والأجنبي شيخ وأقم بأسيان من كان يقرأه فلا يطرد به فتوثقوا شيخ بالحق والرباني حاشا يؤوب المرء كان يؤمه لعساسة عن زفرة بضمان شيخنا تجاني أسفى الكريم لو القصائص نعمتان فلنا من المولى بلطفان يا شيخنا شيخ ahmadu tijjaani la ilaha illallah wujudi wa ni'matul akwani sëriñ Babacar nee na xatamal wilaaya yaba maamama ye ye amrin bi الأكتاب والمكتوم عالي ثاني يا غنيتي شيخ آه. يا بغيتي yaa muniyati fa ana al mutayyamu in arafta kafaani sëriñ Babacar Si nee na wala qad yamantu janaabaka saami ala xaasha yudaamu mulaadimu al ardaani شيخنا تجاني ووقفت ببابك دائقرا عشاء يظل لدي من ضيفاني شيخنا تجاني وابيت أدواء الجنان مهيما لا إله إلا الله علاجي ممارس الأسجان ما عذكم أخذ اليمين بفضلكم في اليوم يكسب في أنفقاني إن لم تكن قريتنا بغيائبي ظلمات الدار ويلتي من فاني سري بابكر وين شيخ ختم الولاية يا بابا أمر الوصية بالنبي أوتيتها لتعرض الشيطان والإتان فأراك مضوق المقال ضمانة بسلامة الأخباب والأقدان سرين بابكر نينا أنت الذي جاريت أقطاب العليل تبا سمت فطبخت عن نكران أنت الذي دل الجواب علوه أدبا بمجلس شافي الأكوان sëriñ Babacar nee na radiyallahu taala anta alladi xaqan atayta jawaahiran wa faraidan hiya xulyatu limaani anta alladi xadamaaka qad alata ala ahli lmuhaymin xubbi barhaqaani ndeysaan la ilaha illa allah doomu maam roqee njaaji nee na narju lxilaasata wa salaamata sayidi عنك سفن عذائم الأخدان نينا لي ضبرد الأخشاء فويق المستمى فكأن لي من فائد الطوفان لا إله إلا الله لي غيرة الأغدى بحضن عبادة فأتيت مغتربا بلا سلطان لي حيرة معتادة بمحبة متلازم الجولان والهيمان لا إله إلا الله ويلغ الشيخ تجان شريف الفاطمي لي غيرة زورية بجنابكم أنت السموح ونعبد الأقوال لي رغبة فأبى الوصول مقادر أين السبيل إليك بالوجدان لا إله إلا الله فلئن أتيتكم عمادي ظلة حلم الجدود تمرح الولدان حمدا لمن قد قصنا من فضلي بطريقك السابي النوراني وكفى الحياش دائم نحظى به نحظى به في العالم الروحاني نعم العياذ السالكين الى المنى ويحبهم حفظ لدى الاركان فصلاة ربي آمين مع سلام دائما آمين أبدا على خير الورى الحنان وبآله الأدعار والأصحاب ما ناعوا القرآن بالأمثال كنكه منكرا أصحاب الرسول والباب القبول في والنصر خلفا العلم الكرام أصحاب الرسول والباب باب القبول واللطف fa tabarakallahu sëriñ Modou Ndiaye Jamil yal na yàlla fay la ci barke yonante bi ñépp la amal ñaan yow ñépp la amal ñaan tabarkal la tabarkal la la amal ñaan ñëpp la war a ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak wér ci barke Sayyiduna Muhammad na yàlla sàmm la ci biir ak ci biti bég nañ lool ci teewaay bi waaye teewaay bi bi mu amee ba noppi ci jëfin bi ba tabaarakallaahu lépp tabaarakallaahu dafa am ruux na yàlla sàmm la ci biir ak ci biti bég nañ lool fa tabaarakallaahu maa ngi koy wax ci émission bële passé eh, booba sax yëgu ni woon dina dem ba ma invité ko wala sax yëgoon naa ni dinaa ko invité mais pour man du léegi fa tabaarakallaahu maa ngi koy wax fii ñu jaar ci géejawaay ànd bi ni mu yàggee ak lépp di rafet ba maa ngi tudd ci télé bi fii ma naan daayira sopp di Jamil bi bi ñu koy boole fekk ñaari daayira la woon maa nga woon ca beneen ba di tàgg yonante bi moom mu nekk ca beneen ba di tàgg yonante bi ñu daje fii ci korniis bu ma juumulee ay deux mille un wala deux mille wala ay quatre vingt dix huit yooyu waaw côté yooyu la yàgg na du tey ñu daje fii ci corniche bi ndeysaan ñu boole ñaari daayira yi daayira boobu tey mooy daayira sopp Seydi Jamil moo tax heure bu nee dama naan ci laa bokk ci laa bokk fa tabaarakallaahu man daayira yépp laa bokk sutura boobu moom yàlla may na ma ko tabaarakallaahu ñu di la ñaanal yàlla yàlla na la yàlla sàmm ci barke Seydina Muhammad ci biir ak ci biti ànd bi yàgg na lool te dara ñaawu ci lépp yaa ngi koy rafatal tabaarakallaahu yal yàlla rafatal jéemé ci yow ci barke sayyiduna muhammad ñu jox la rek nga def say tàggu kàddu euh, euh, euh, kàddu yi nga xamante ni moom ngay mujjee tàggoo bismillah sëriñ Modou. jërëjëf la bëggee wallaahi ndeysaan wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi ndeysaan ak rakkam yëpp ak doomam yëpp ak jaraatam yëpp amiin wallaahi sallallahu alayhi wa sallam wallaay ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan wallaay da ngaa baax war na fi fekk suñu xel day dal. wallaahi bëgg lool di kontaan lool ci bokk bi ñu wallaahi ndeysaan wallaahi wallaahi na yàlla wallaahi yàlla tabarakallah gën ñu lool wallaay ndeysaan leen liggéey ñëpp masha Allah tabarakallah mën ñoo ñàkk gërëm suñu waajur wallaay ndeysaan wallahi wallahi ñu ko jaarale ci moom mm-hmm. wallahi wallahi wallahi ndeysaan ñu jaare ci moom wallahi ñu Serigne Baye Sall mm-hmm. di sama xarit wallahi pire pire wallahi pire wallahi pire wallahi ndeysaan tabarakallah am na am na loo xam ne boo ko war a waxee na lay wax ci nit ki sax mm-hmm. ñaanal ko wallahi ndeysaan suñu xarit la suñu soppe la frère la. Mhm. suñu yëpp la. Mhm. may may may profité rek di wax ni ah, ah tàkkusaan soxna si di jëmee boobu ah, nga nga nga mujjee tudd léegi. wallaahi tàkkusaan bi ñu mujjee def. wallaahi dafay talaata lu ci bëri moom. wallaahi wallaahi wallaahi ndeysaan wallaahi Cheikh Moussa ak Serigne Lamine. Mhm. nga xam ne wuute fi seen bopp waaye wuute fi seen i mag ñu jël rek ñoom Babacar ak ñoom Sox. Mhm. tabaarakallaahu. Mhm. ñoom bu ma àndee man rek. sama xel dal. wallaahi moo tax léegi ñoom jëlee bu la amee ndànk du ma du ma sox ñoom Babacar. dëgg yàlla muy ay rakk yu baax la topp si di gërëm baax ak yëpp di gërëm ñëpp rek yëpp daal ndax salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Mor Ndiaye wax na dëgg. Eh, conférence bi ñu mujjee def ci daayira sopp Seydi Jamin béy di sàll bokk na ci ñi ñu ko tuddee tabaarakallaahu kon yàlla na yàlla yàggal lépp ci barke Seyduna Muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu